lu ëpp juróom-ñaari téeméer ak fanweex ci fan Sénégal kenn la watul woon bayandoor ndax bés bu ne ay saaga ay njuñ njaaj ay tëkkuwaate ak fen ak ay sos lañu dëkkee kër yépp tas nañu xol yépp tàng nañu dëkk bi yépp mel ni lu ñu suy kaani walla poobar ndax politique lu fi mësul woon am tàmbali di fi am ci suñu dëkk bii nga xam ni jàmm ak salaam jéggale tey jéllale lañu ñu xamee ñu dëkkee tiit ak njaaxare dëkkee naqar ndax metit kilifa diine yi ñu saaga kenn ñemeetul wax dëgg ndax tuuma yi ñu dem ba ay nit di ci ñàkk seeni bàkken ñuy taal alalu jàmbur lu ko waral benn politicien bu ne du wuy ji yoon ginnaaw bi mu nattee boppam ay xale yu bari topp ko li ñuy ñëw di leen wan dafay tegtal jaar-jaaru politicien boobee xam ne dafa fogoon ni am na doole boo xam ne lu ko neex wax lu ko neex def te dara du ko ci fekk nit kookee bokk na ci ñi gën a doy waar ci làngum politique gi ñu gën ko xam ci turu Ousmane Sonko jëf yi mu ngi tàmbali woon ca mars 2021 daanaka ba juillet 2023 suñu gaal réewum teranga dëkku kilifa diine yi ak aada yi atum 2021 ginnaaw covid benn ñaawteef dal suñu kaw Ken kunu din sakku mui us mansongo Ne maga y ta di sufu, di lima mabaga, ma dem sa mayon. Te for munti dagutxe adu. Te for munti dagutxe adu nadinakoham.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 ak jamono yi ñu toll dootul jamono wax ak jamono nekk ci réseaux sociaux yi ak la jamono nekk ci salon yi di commandé déedéet jamono ji jamono xeex la jamono mu jaral la sa bakkan la jamono jooju lañu toll mu mën wax loolu lu dul dëgg

may wax fii ñëpp dégg ko diffamation amul diffamation amul ndax dama lire benn document boo xam ne rapport IG bu nekk ci internet la rapport bi ne épinglé nañ ko moom Mame Mbaye Niang ci ay tooxi doone yi mu def moom ci product ma waxaat ko fii ñëpp dégg ko Nous avons saisi le gouvernement d'une question écrite en tant que député pour savoir si l'article 27 était applicable au mandat en cours ou pas. Et la réponse du gouvernement, par le biais de son ministre de la Justice, c'est qu'il ne revient pas au gouvernement d'interpréter la Constitution. Et donc, rien n'empêcherait le président Macky Sall, s'il parvenait à décrocher ce second mandat, de pouvoir briguer un troisième mandat en 2024 en considérant que l'article 27 n'était pas applicable à son premier mandat puisqu'il ne pouvait pas rétroagir. Et nous disons à ces partenaires-là de tenir un langage de vérité à Macky Sall et à son régime. Qu'il ne peut pas réussir le pari qu'il s'est fixé. Qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Sénégal ne l'acceptera pas. moome Ousmane Sonko doon kuy naxaate. kon ma wax ni maa ngi confirmer it ni dañ ma doon essayer faagaagal te liñ ci war a def ñu ngi koy def ndax avocat tey pare nañu document bi ñu war a commencer liggéey wala bi ñu war a déposer fi ñuy déposer. waaw bu quartier Sénégal yépp takkoon seen fit takk seen ndigg jàkkaarloog Macky Sall gëm naa ni du fi def genn wàllu fan dina takk ay bagages am dem ñii woo nag ñëpp ñu am solidarité ak waa Ngor rawatina ñi seen dëkkandoo di Yoof di Wakaam ba Cambérène waaye feneen ak feneen ci Sénégal ànd ak ñun ñu jàppal tey euh, fukki ba fukki bakkan ak ñett euh, ci jabootu Sëriñ Tuubaa lañ bokk kon loolu wane na ñi ak ñun te ñi ci génnee léppam moom Ousmane Sonko daf ko teg ci xëbalaate toj taal ak yàq Macky Sall faw ñu xeex ak moom mu jóge ci Macky Sall du fi jóge ci jàmm parce que xamul jàmm Macky Sall jàmmarloo moo ko fiy parce que xamul beneen langage loolu nag askan moo ko mën waaye bépp sénégalais buñ ko wootee ak foo mun ci nekk ci Sénégal na nga dox jëm Dakar ñu dajale deux cent mille personnes lu ko raw. desu nañu phase d'explication ay décision la ñuy jël foofu. décision bu ñu fa jël rek ñu bokk ko ñun ñëpp jël dinañ ko appliquer bu ñu jëlee décision dañuy dox dem pale jëlee fa Macky Sall dinañu dox pale jëlee fa Macky sal ci nii wala ci nële foofu la ñu toll ci réew mi. Sall laay waxal daañu xeex ak moom bu dee gendarmerie ak police rek la yaakaar na préparer xam ni dina rey Sénégal yépp waaye daañu xeex ak moom. loolu tekkiwul ni dama dem jox sam bopp Macky Sall xam ngeen lu muy tekki moy Macky Sall dina jël suñu bakkan wala ñu jël bakkanam su dafa bëgg continuer. te maa ngi fu Macky Sall ndax benn bis bu laalee benn ci leader yi fi nekk le peuple va le sortir du palais et va le traîner dehors comme Samuel Doe. comme tous les dictateurs yi nga xam ne jaar nañ Cuur fukki ak juróomi ndaw yu ñàkk seen bakkan ginnaaw loolu yépp am fi dégguñu benn yoon ñooñee dippee seen bopp société civile ben Ousmane Sonko yak yàqkat catastrophe nucléaire cet enfoiré en arme heureusement bu Auchan We have an appointment for one. Bro, and he just told me to come up here earlier. Yeah. <laughs> come here. Yeah. I had an appointment at one, so I came here. Oh. oh my god. Don't don't go too far in there. Oh my god, I'm shaking. No, I'm literally shaking. C'est choquant. It's glass. Yeah. Everywhere. Oh no. We're gonna go upstairs to the counselor. Keep on. Oh my god. Vai ele que pica com cilada. Com cilada. Com cilada que é melhor. Com cilada. É a yap, yap. Com cilada. Aí apanha. Congelado. Vira, vira, vira. Cara, vira, se calma, se calma, vira. Aí apanha. Congelado. É, é. É, cai, cai. Quer dizer, quer dizer. benn Ousmane Sonko warkat man Ousmane Sonko maa ngi juddu doon jullit àqan mësuma bokk ci ay tarixa muy murit di tiijaan di laayeen di ñaseen duma ibaadu itam ab jullit kepp laa loolu laa gëm Casamance bi ma bokk ay mbirum tarixa bariwu fa doole ñi miin boor boobu xam nañ li may wax ñépp xam nañ ni sama waajur bu jigéen ab tiijaan la bu bàyyeekoo ci njabootu alaaji rawaan ngom waaye de Casamance ay tuuti tuuti tiijaan rekk nga fay gis loolu moo waral awma fenn fu ma bokk ndax ci loolu lañ ma yar maanaam bañ topp kenn ku dul suñu borom ci loolu lay mës dox ba xëy dee. ñi jiite depuis début ba léegi soo leen dajale woon ñoom ñëpp fusillé leen defoo bàkkaar ngeen jéggal ma mais c'est des criminels parce que li nekk ci réew mi potentiel bi ñu am capacité yi nekk biir Sénégal nga mën a gis des niveaux de souffrance.

ولمي عربي صار بدلين وحبيبنا بكرن أي مليار يجوك خالص مداو ولمي تخرف إنك يا وسط يرن تبان سط يرن ترى بكفى أي مليار لا دينه وتو ما يكون خامن لوموسا نك كومبلو في أفريقيا أدوموسا نك كومبلو في السنغال لخامعة شيء.

c'est toujours un plus muy Ousmane Sonko defkatu njuuma lay daw lay daw ko ñe ngeen daw ko ñi gaay ak ñu yow li ra Sénégal li ra Sénégal ni gaay taal nañ terre bi de gaay taal nañ terre bi tut tut Kurang ambil lah. Sabito, faculté des sciences juridiques et politiques. woyaye biye jambide ala kaza folenkelun tolle pareta ziguinchor sonko binala Ousmane Sonko way fippu. mané man sama jëflanteeg tribunal parena, na jeex dama len ko waxoon ci mitingu Kër Massar bi ne len dama dama tollu ci sama terminus ndax bima ma commencé jëflanteeg justice ba légui lorange sur lorange te ay magistrat ñoma koy tek man lool mënatu mako Et est-ce que vous avez espoir qu'un jour qu'il devienne président du Sénégal Non, parce que ce serait un gâchis pour nous, les Casamançais. Que son co devienne président Ah oui, je vous le dis. Comment ben, Écoutez, quelqu'un qui a déjà assassiné tous ses parents, on nous assassine depuis que nous sommes associés avec le Sénégal. Eh bien, pour la première fois, nous avons montré au monde les Djolas nous avons ces qualités intrinsèques, honnêtes, travailleurs, et ne mentent pas. Notre fils sort, ils veulent coûte que coûte l'éliminer. La Casamance et les Yola ne souhaiteraient pas que son fils soit président de la République du Sénégal parce qu'ils vont l'éliminer ni dañu wara a ni makisal a un problème avec la Casamance et les Casamance. té lolu bi Sénégal di Sénégal ba léegi musul am de Senghor à maintenant Ben président musul traité Casamance et ni ko Macky Sall di Ousmane Sonko wormal suñu état Dans le quartier Nema de Ziguinchor, ces jeunes sympathisants d'Ousmane Sonko font désormais la loi. À l'entrée de la rue menant au domicile de l'opposant, ils montent la garde et filtrent minutieusement les allées et venues. Toutes les jeunes de la commune de Ziguinchor, nous sommes là pour défendre notre président pour lutter contre l'injustice. Si Macky Sall doit envoyer des nervis ou des gendarmes, il devrait marcher sur nos cadavres avant de prendre notre leader Ousmane Sonko pour l'amener au procès. Ça, c'est lui le conseil constitutionnel, c'est à lui de dire qui va être candidat et qui ne va pas l'être. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature. Toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront recherchées, arrêtées, poursuivies et traduites devant la justice. waaye li nga xam ne mënuma koo bàyyi mooy kuy jéem a faafaaga réew mi wala di ko jéem a yàq wala jàpp ne mën nañ fi installé kaw loolu moom lu mu jar dinañ ko ci def dal di jàpp yéekatu fitna boobee Ousmane Sonko xol yépp tàmbali féex. man kay je demande ba xam ñaari sénégalais fi nekk benn sénégalais yaa ngi xeex di rayante dëkk bi di tàkk waaye gis nga ñii moom ñu ngi féexlu moom lu gars yi xeex rek ñii féexlu noonu ko seetal ma lii rek lu ñuy xeex rek genn wàllu sénégalais yi xeex rek geneen genn wàll gi féexlu noonu ko. ñu toog diir ñu taal benn ndaamar ba ay xale yu jigéen yu ndaw faatu ci anit ay waa ji waa lu taal bis bi xol yi tooy loolu waaw plus daal ay sept moom parce que à peu daal ay sept personnes lan mais nag toll na nu leen neex moom fule sol seen i gilet ak seen i tëré ay tëré lan sol ay tëré kaki yi moom lan sol sol seeni i gilet yu noir fule doo gi seen kanam bët rek ngay gis si ñoom amul benn image bay gis si ñoom bu dul bët bët kese ngay gis si ñoom lima nakari moy ñi ci faatu te doon doom adama ñi leen ko tek nak dafa melni japp na ne du ni nit parce que mënoo fekk auto mu yab sa baay sa yaay ah, say mak say rak doon jigen ba góor ngay taal auto bi di jigi tali rek daan ni tey rek lay na ani chauffeur bi ani ki nu mu tuddee receveur bi daal di jël ay xeer ay xeer la ñu yor yu xonk yu am béton daal di tej fi ma togon parce que man ma ngi togon ci kanam si ñetti rang yi si kanam euh, pa bi ñu taal ñu yëre yi kii génn noonu ñoo jàkkaarloo woon bu mu dóoree xeer bi rek daal ni booy taalal taalal ñu rek lañ di taal ngeen dee andi bi ñun tam ma daal man sax nee naa waaw ba dama defe ne xale yi ñooy sànni bi ma gëstoo rek mu daal di ne taal si biir nit ñi di ñaxtu di faj seen mer yéen ngeen di liggéey dan tey rek lañ leen di rey daal taal biñ taalee nag demuñu dañoo taal taxaw tuuti ba tàkk-tàkk bi gën a tàkk ñu daal di ñu ni ubbi leen ñu commencé yuuxu ubbi leen ubbi leen ñu ni tey rek la ñuy rey seen ba ngeen de kenn du ubbi tey ngeen di tàkk ba jeex yàlla seeden li may wax lu see nag après ñu laajte waat ma ma gan kaa ni mu leere yóbbaale seen photo euh, ñoom it ñu xool bi ñu paree xool ñu won ma photo ñii nga xam ne dañoo làq ñu ne ma yow léegi dañ lay won photo bi pour nga estimer sa bopp nga xool yow tamit loo gis mais bi ma xoolee xale bi tëdd xale bi ni mu tëddee ci fi mu làq ak ku mag fi mu toogee ma ne ah léegi daal man la y problème dinaa ñëwaat. sa la joxoon waaye suñu état wone dooleem ngir téye bi mu téye Ousmane Sonko. comme niñu ko kilifa rew mi digale ñu gëna yok yokk rew mi ba xamni gam bi ku fi ñew te bëgg jamm rek di nga ñew ci jamm dellu ci jamm ku fi ñew pour safa nit ñu teg la loxo rek wax loolu mom mo fi ne juk ak dëng rek ñun bu ñu di wër ñaar yépp bo jubé ah. ñu ànd yow gën la ar bo ñu la loxo loolu dal mom mo mo tax ñun bari na ñuy mais loolu na sama xel dal parce que kiy nara a jëf du wax am na loo nga xam ni ki ko nara def du ko wax wax ji bari waaye fii moom yaakaar naa ni kuy tëb di jéem a yàq màggal gi yaakaar naa ni yaa yàqu loolu moom mooy lu wóor ñun nag jël nañ suñuy matuwaay pour loolu ndax saay-saay moom dafa bari taxe waaye jot na nag ñu soppali suñu doxalin que bég ci sama réew senegal ca kaw